fi ñu toll nii. Euh, man de li ma jàpp mooy euh, Amadou Ba dama ko déglu. Mhm. fii la ko waxee sax TFM. Euh, ci émission je crois Faram Facce ou édition spéciale en tout cas moom ak Pam Gagne mu ni moom ci ni mu waxee c'est quelqu'un boo xam ni pare na pour accompagner Macky Sall soit temps bi mu fiy def man jàpp naa ni moom du dauphin loolu laa gëm. Euh, parce que bu dee confirmer na ko wala confirmer ko autre c'est autre chose mais en tout cas euh, wax nañ ni soit euh, de dernière minute la am na sax ñu ni le même jour la ko yëg man jàpp naa ne kuy préparer dauphin à un an et quelques mois de la présidentielle 2024 su fekkee dauphin la ñuy préparer kenn du xaar ba heure boobu doo koy def man gëw ma ni dauphin la li ma gëm mooy moom bokkul ci ñi nga xam ne daañ taxaw ni ko doo fi defee troisième euh, candidature bokkul ci ñi nga xam ne ci moom lañ bokk ñoo xam ne boobu position lañu am kon jàpp naa ne Amadou Ba daal comme seen une boo xam ne moom euh, bu ñu tegee ne ay compétences yi parce que gouvernement bi un an la fiy def euh, un an quelques mois quelques mois yooyu mun nga wax ne pré-campagne la donc un an moo leen dese après onze ans au pouvoir man jàpp naa ne bu ñu nee gouvernement d'attaque la ñuy teg lan la ñuy attaquer parce que wax dëgg yàlla boo amee fukki at ak ñaar nga def fukki at yeeg benn wala yu yées ko tuuti mu dese la rek at ak ñaari weer wala ñetti weer bu ñu ci dindee sa pré campagne bi at kese la ah man de jàpp naa ni xanaa il faut ñu nekk ay génie lool pour que lañ mënul woon a régler ci 11 ans ñu mun ko régler ci benn at bi des man jàpp naa ni du benn gouvernement boo xam ni mën na def loolu en terme de vraiment record euh, gëw ma man ni mën nañ fi soppi liñ fi doon def lañ doon def depuis 2012. Euh, gëw ma également que Amadou Ba euh, moom ak équipe am quelque soit seen xarañte mën nañoo soppi ni Sénégalais yi di dunde ak jafe-jafe yi Sénégal di dund. kon li ma gëm mooy président Macky Sall ci logique am la nekk mooy constitution bi wax na mu leer que moom mënta am ñetteelu mandat. que nu ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs te maanaam nit mënta aye ayewaat tegal ci ñetteelu ay yëpp tegaloo. Mm-hmm. te moom am na ñaari ay yu tegaloo kon mënul ta ñetteel kon nag loolu man pour man mooy problème bi ñu am aujourd'hui nag le président Macky Sall cherche à brouiller les pistes parce que teg na koo xam ne bu ñu demoon ba dernière minute parce que jàpp naa man ne troisième candidature bi euh, dina yeer na fii ci dëkk bi fekkante ni annoncé nañ ko hmm. kon nag bu boobaa bu ñu demee ba ca cappaandaw ba bu xoolee ni solution solution amatul peut-être bu boobaa mën na ko teg pour essayer derrière lui mais ci jamono jin toll nii ku nekk sa xam Euh, ci mbir mi um, um, munoo waxal dul li nga xalaat parce que nekkuñ ci gisaane nekkuñ ci leneen mais acte yi président Macky Sall di posé wanewul ni day wut def dauphin maintenant nag euh, ëllëg yàlla rek moo xam parce que ñun xamuñu luy xew ëllëg mais daal acte yi muy posé ak profil bi mu teg man gëw ma ni defar defaraat moo ko indi euh, gëw ma ni régler problème sénégalais yi moo ko indi gëw ma ni dauphinat la li ma gëm mooy waajal lay jéem teg un quelqu'un boo xam ni moom d'accord na ci lépp loo xam ne moom bëgg na ko def tant que moom mi ngi ànd ak moom di nekk ci wetam di nekk premier ministre kon daal euh, ci gàttal man euh, loolu laa gëm ni moom mooy profilé wu à l'horizon